alhamdulilahi rabbil na gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi gërëm sunu ñaari waajur gërëm sunu sëriñ Cheikh Mamadou Jim Ndiaye di gërëm suma sëriñ Cheikh Mamadou Lamine Jim Ndiaye di gërëm sunu sëriñ Cheikh Jim Ndiaye di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana yal na yàlla xare ko àjjana njaboot gi mu fi bàyyi yal yàlla gunge leen ba si kanam di nuyu presse bi fi daje yëpp Gambia Sénégal di nuyu Gambia yëpp di nuyu ñi ma ànd ñëw fi di nuyu Baye Mandione ak plateau bi ñu ci nekk ñëpp maa ngi leen di nuy di nuyu jàmm Babacar maa ngi lay nuyu bu baax ñoom Mara Ndaw fans club Xoyantaan Tafa Gaye Ousmane Gaye euh, ñoom maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. ñaari grand yi toog xaj na xaw ma seen tur waaye. ñoo bokk taaw bi maa ngi nuyu di leen waaw. maa ngi di nuyu di leen ñaanal jàmm yéen di nuyu sama manager Matar Sène di nuyu Gambia bi yëpp ñëpp képp koy siibu rek maa ngi leen nuyu di la ñaanal jàmm di leen wax yàlla yàlla tal ak fekke damaa ñëw ci saal bi ma fekk fi sama mu nekk saal nekk si eh, kanam eh, maa ngi koy nuyu bu baax dañoo gëj a gisee man ak moom nag moom may woowaay dégganteetuñu eh, bu baax di nuyu monsieur le maire Ali Mané di nuyu commune Kayemor yëpp maa ngi ñëw naan ñëpp jàmm. ku ne sa tur ak sa naa ba sant yàlla du julli ci ante bi may sant di gërëm samay ñaari waajur di leen ñaanal yàlla tàbbal leen na ak mbooleem jullit mu ñàkk waajur yàlla na yàlla tàbbal àjjana ci barke Seydina Mohamed ñu nekk ci yàlla na yàlla sama borom jàppale seen njaboot ñu nekk ci hôpital yàlla na yàlla sama borom saafara ñu njaboot Sénégal yàlla wàcce fi xéewal wàcce fi jàmm Gambie yàlla wàcce fa jàmm wàcce fi xéewal ndax ñu doon Gambie ñoo bokk lay ñoo bokk bàyyi ndax làmb ji làmb Sénégambie la yàlla dogal na bëriwoon na nag maa xawantaan maa koy nuyoo vraiment du nuyu ñu si plateau bi et tout du nuyu Sankhare su ma doom lay maa bu baax waaw di wax lay dalal jàmm ah. waaw di wax ne dëgg yàlla euh, kontaan rek laa def ndax jamaïcain xale la dafa toll ci liggéey mais nag liggéey boo gis buy commencé fii foo ndong ndong am waaw su ma combat xawantaan bu roman jàmm xawet daan préparé ay mbokkam man ma préparé suma combat su ne mbokk ñu déplacé wu dem ba Gàmbi làmba ji yàqu gënalu ma gënal suma adversaire gënalu Gambien yi gënalu yi kon nag bu yàlla dogalatee Jamaïcain jëlaat combat bi jële ko Gambie indi ko Sénégal may wax ni day day neex ndax li yàq làmb Gambie yàqu ko Sénégal bi <laughs> waaw li yàq làmb Gambie ah. wallaay yàqu ko Sénégal wax dëgg yàlla kon nag yàlla na ko yàlla ba wér yàlla defal ko wér defal promoteur bu ndaw bi wér waaw bu jàllee si combat bi doo ko ne promoteur bu mag waaw ah, non léegi mag la sax dëgg yàlla ku tuddee dara ko ndax moom international la te yàlla ñun waa Sénégal yëpp suñu tiital la dañ koy sagoo di ko tiitaloo ndax tey boo nekkee Sénégal doomu Sénégal nekk bitim réew di fay da ko war a ñaan yàlla sama borom yàlla jàppale ko kon nag ba bis nga xam mën a jox drapeau bi xam naa ni kontaan naa ci loolu xam naa suma adversaire bi kontaan na ci ndax danga koy bëggal moom di ma bëggal kon ma koy wax ni rek mu jàppale xoyantaan ci combat bi jox ko ay moyens ndax Gambie lay liggéey man demoon naa Gambie mais bu may dem Gambie frais yu métti métti laa defoon doo a ñëw xam nga di dem Gambie nga fay kaar boobu yi benn kaar bu ne ñu lay fayee ko ay deux cent cinquante mille ci Gambie gi rek te Gambie Sénégal benn la kon na xoyantaan bi lu war a jàppale la maa ko fi jëm jox xaalis daan xaalis bu bëree bëree man moom ma ko jox tuuti rek ndax Sénégal la dëkk jox jamaïcain lu bëri waaw loolu quoi am na li ma bëgg leeral rek tuuti mooy dama la koy delloo sa bopp nga xelaat ci tuuti làmb amul dagal dama laaj ñëpp maa ngi nëbboon yaay wax làmb am na dagal we wala amul dagal am na fan la am làmb Sénégal dañ koy doxal. mais làmb dama lay làmb Sénégal dañ koy doxal làmb Sénégal buñ koy ni ko Sénégal di doxalee la ko Gambie di doxalee ma tuuti loo xamul taxi yi daw Sénégal fii moom lañ jëlee fii Sénégal dem copier ko Gambie mu nekk engrais Mata Seen moo doon piaro Gambia mu ngi noonu toog liy dox ci làmb Sénégal moom lañ jël yóbbu ko Gambie gis nga mbër dangal sawee boobu ñaax làmb boo bëgg a wëree dañu wax rek te yàlla tax kii ak maamum su bëggee yàq làmb mën si meeku ñëw taxaw arbitre maa ko man si meeku ñëw duma ko daan ko arbitre day dugg si biir di maa ngi yow nga xool ndax arbitre yàlla na arbitre yow ñëw di la sotti saawa booba ngay xam man maay kan xam nga fii am na ku toog fii mu ne maa ngi ñaanal xoyantaan maa ngi ñaanal bàyyi la yow yàlla may fa ndam non taxul ma jéppi taxul ma mere ko ndax làmb la te ragal féete day xañu warsak tey yow bi nga ñëwee Sénégal man Gambia man ak yow ñu def jàkkaarloo ma dégg ku jël micro mu ne maa ngi ñaanal koy daal am ndam ci ñëw seet la amul waaye man dama nangu tey déglul to déglul gis nga ñi ñëpp buñ la ñaanaloo du tax ma jéppi leen du tax ma def leen ci lu bokk ci làmb sport la man dama ko dund arbitre yeeg ñëpp buñ faree ak yow ma teree bëri xanaa ñu ngëp suma tànk wala ñu takk ma damaa bëgg làmb nañ wax dëgg te yàlla tax daa sàqi combat daa daa sàqi déet dafa sàqi kii nu mu toll déedéet bu ko jox micro rek man maa maay wax moo doon wax dëgg daa wax ba pare suy wax nga wax déedéet bàyyi ba ma pare bàyyi ba ma pare suy wax nga wax beneen bi mooy duubul tey seen xoyantaan xoyantaan dafa pare expliqué wu Double Tyson ñëw ànd ak ay nitam di dóor ay parents ak ay police lamb di yàqu léegi loolu si yoonu Xoyantaan Xoyantaan beneen combat bi mu bëree mooy contre Leket ah? ak contre nu France dégg naa ñuy wax ne combat yooyu ndaw lamb ñett moo ci nekk daan mbaa daamu mbaa maximum léegi décision arbitre du lamb ba bokk ci lamb moo ne bàyyi leen seen xel ngeen toog di ko foye ñun ñëpp ay mag jëmm lañ. mbër bu ba ba daanu jeex la moo fa ndam day am te nekk fii Sénégal fii lamb di jeex ci avertissement fa daan nekk mbër bu ndaw nekk suñu xubale lamb di jeex ci avertissement fu mu am bàyyi a fooye amul ku mooy dinaa ñëw ànd ak sama askan ànd ak Sénégal ak kàmm di ñaanal ñoom jàmm bàyyi ko ñoom su lamb jàmm yëpp nañ ànd ak yow waaye man dama très bëri ànd ak yow duus sotti la ko wér waaye dama très bëri mu ngeen dégg ñëpp combat bu rafet xam nga la ah, leen ma mbër xoyantaan kaay xoyantaan kaay bàyyi ma ñoon kaay kaay leen ñu tëj débat bi kaay kaay kaay leen taxaw ni waaw waaw kaay non bi mooy jeex nañu ñëw fi teel <laughs> bàyyi bàyyi xoyantaan moom nee na Sénégal yëpp maanaam bu ñëpp farek yow moom day bëri. bon fii ay parparloo amu fi dégg nga yooyu jàpp naa mais xamul Sénégal wallaahi fi amul parparloo yaa ngi man damaa bëgg kii bu ñëwee. waaw wallaahi xoolal bu ñëwee ci laa la nan ko na dem bu ko neex bu ko neex bu règlement yi am man baax na su ñëwee maa dëkk ndax combat bii nii combat fay bor la. ci man boo gisee bu ñu laaj combat bi amul tax wallaahi mu ne danaa ah, daw ñëwul bi ñu doon combat moo tax nga dugg ci loolu ku denc mu ngi nii su ma fenee kaay na ma da ngaa fen ma ne ko xoolal mu ne ma sa combat xoyantaan laa bëgg a ma ne ko gratuit damay bëri combat woo dama ko téye fii il faut mu leer dafa am lu ma yore nit ñi xoyantaan yore ko nit ñi dafa war a yaa ngi dégg loolu mooy may guddee ci ñëwee Sénégal fii ñu xam moom mooy kan jàmbaar su ma neexee ma ñu ne dagg ko mën a dagg ko balaa ma day yàqu su ma ma def comme yow rek yar samay wey balaa may ñëw fi mel ni jigéen su ma ñëwee ñu ne ma daggal ma bay lamb jeexu luñ koy def dañuy bëre loolu la rek su ma nee ma def li nga defoon rek yar ay we mel ni jigéen emaay ko teg si wala ma fuddan ko waaye micro bi fayul micro bi date bi benn semaine sax baax na aajo muy sori. billaahi waaw ah. mais man maa ngi liggéey moom mu ngi liggéey kay loolu lu leen yàggal. waaw fi mu ne de pare ngeen. liggéey ma damaa may woon man moom liggéey la waaye man naa li ma amee man naa la daan. man nga koo daan. li ma amee. waaw li ma amee du baax la ñor du pour baax la ñor. li ma amee war bu yow ah, li laa ci mënu ma daan. mënu laa daan. lu leer laa la wax. déet waay la tax a saaxi. Babacar yow damaa bëgg nga wax. Babacar Babacar yow xam nga ma yow. waaw waaw. yow xam nga ma yow xam nga ma. ah. alors waaw waaw léegi jaway ke julli jot léeg déedéet jaajëf gars yi kon gars ba beneen yoon ñaar rek